kilifa dégg ngeen réew yow caati sa silif baa ngi nii kilifa sa silif baa ngi nii xale bu xamadi lii lay ka wax seen yi ne ma joxoon si mu ngi nii maa leen koy fuute xeeñ rek yóbbu na amu bi yëpp saabu bi